ah ben mais attendez ban fexe même dossier fi mu doon bësloo. am na ñu bokk ci yéen ci dugal seen loxo ngir gën a xam taal bi. nga ne nga ne dossier. fi mu doon bës laa wax. ah kan moo koy bu mu bës. waaw dama ni Babacar mais est-ce que seen yoon ne na ci. ba ñenn ñu bokk xam nga euh, xam nga pexe. xam nga su fekkoon ne Sonko bëggoon na loolu yëpp mu leer mu nañ mu nga xam ne mu leer nañ moom dafa neew complot la yoon may ko mu ñëw un procès public ak tous ses avocats mu prouver ni complot la defu ko mais ñëwaatal nga ñëwaat ah, au début de cette affaire bës lu nga wax ci ban waxtu ak ci ban saal ak liñ ci wax yëpp xam nga sénégalais ñuy bëgg a fàtte dafa njëkk wax ni dafa am ba nga xam ne feebar bu nga xam ni depuis bu mu nekkee xaal daf koo topp cinq dix minutes ci procès bi leer na leer na sénégalais yëpp ñu bëgg a dëgg que du du woon ba toog ci siis rek la def ñu bës ko mu dellu cinq minutes dix minutes loolu leer na xam nga juge bi moom dafa ne viol la jàpp ni viol amul waaye jàpp na ni seet nañ foofu lu nga xam ne du bës du rek moo la fa doon yóbbu donc par conséquent bu fekkoon te ni vraiment am na disposition mbir mii mu leer nañ ci mu seetal boppam dafa waroon dem teew lu ko teree teew. lu tax seen i ñooñ dugal ci seen loxo. ci mbir moom xam nga.